ma ne la mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yeneen tam ba di gërëm suñu maam Soundiata Keita eh, yaakaar naa miin ngeen jëmm ji Cheikh Ibrahima Keita xalifa képp kuy dund ci kër Soundiata Keita le roi di yàlla def ma may xalifaam tey maa ngi leen di présenté seen YouTube bi eh, CIK TV na ngeen bàyyi xel ci seen YouTube boobu su may émission dina fa di daw waaw ci wàllu xam-xam képp ku bëgg a xam Soundiata Keita koj ma ci CIK TV waaw la euh, CIK TV koj ma foofu euh, émission yu neex ñu ngi fa émission yu am fayda euh, gindi jaamu yàlla yi ci feebar yeeg xam-xam yeeg lépp luy actualité rek ñu ngi ko fay defee ci kattanu yàlla ak darajay njata